ñuy dalal tey na euh, Cheikhna Cheikh bu Keita doon commissaire à la retraite di jiite woon OCRTIS commissaire ñu ngi lay nuyu. maa tey ñu waxtaanee ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, violence gu bëri gi ñuy nemmeeku dëgg la mosu fee jógee mais dañuy gis ne léeg mu wàññeeku léeg mu gën a bëri jamono ji ñu uh-huh. toll nii nga foog ne lan moo waral violence bi tey. ni ko waxee noonu la Euh, ni nga duggee ci waxtaan wi noonu la parce que insécurité yàgg na phénomène social la bi nga xam ni de société la bi nga xam ni yàgg na fi mook dund doomu aadama ñoo yem mm-hmm. dafay yéeg nag ak di wàcc day gën a tar wala mu wàññeeku mm-hmm. mais tamit day am ñaari niveau yi nga xam ne ci lay nekk niveau bi nga xam ni nit ñi duñu xam ni pourtant ay sàcc day am ay gaañaate day am mm-hmm. mais nit ñi tuuti duñ ragal duñ sentir ni ñoom seen bakkan bi ci xott la nekk. Mhm. pour parce que niveau bi day day suufee. Mhm. à ce sécurité day am malgré que police ngi jàpp gendarmerie ngi jàpp day am. Mhm. mais yi nga xam ni ci durée bu yàgg yàgg yàgg ci beneen côté bi lay nekk. insécurité bi dafay nekk tiim doomu aadama ne continuer di fi nekk ay weer ay at. ay ati ati ati ati ati mhm. à ce moment nag loolu dañuy comprendre ni c'est insécurité bu prolongé la insécurité bu continuer di di dem la mhm. bon su su loolu xewee ci biir loolu dañuy am li nga xam ni dafay yéeg ah mhm. gën a grave mais ci biir yéeg boobu day wàccaat encore mais du tax mu jeex ñu ngi ci phase boobu la ñu toll actuellement su amee nag dañuy comprendre ni li fi indi insécurité bi mooy facteurs yi nga xam ne moo tax nit ñi du nekk ci jàmm mooy délinquance environnement bi ak lépp lu koy indi. Mhm. mooy euh, situation difficulté yi nekk ci quartier yi mooy xat-xat yi nekk ci biir quartier yi mooy ñàkk liggéeyu ndaw yi mooy euh, yenn phénomènes yi nga xam ne mu ngi ci biir quartier yi tey pousse nit ñuy def nu dul noonu. Mhm. yooyu yëpp daf fiy nekk mais mais su facteurs yooyu su varié rek. Mhm. dafay gën a grave. Mhm. mais dañu dem nag dañu nekk ci benn jamono bi nga xam ni actuellement euh, boo remarqué depuis trois ans à peu près dañu dugg ci benn guute gi nga xam ni moom la ñu fi Covid bi indil. Mhm. ak lépp li nga xam ni moom la àndal perturber situation dundinu doomu aadama yi jaxase nit ñi indi nit ñi ci benn tendance violente ñu confiné woon fi nit ñi tamit nit ñi révolté wu ci biir at yi wax bi changé comportement yi changé ñu gis ci lu bare bari li nga xam ne changé loolu facteur aggravant la hmm. boo ci yokkee yi tamit si yenn situation yi nga xam ne day tax un peu partout nit ñi di di di changer comportement hmm. nit ñi di gis lu lu lu ñu mën a sàcc nit ñi di gis lu ñu mën a jël pour mën a sac yomb yomb yooyu nekk ci àddina bi ci côté nit ñi nga xam ne amul dara day indi insécurité bi toujours di yokk parce que amoon na jamono sooy ndox ci mbedd mi doo du bari looy gis nga mën ko sàcc mhm. mais léegi li ngay sàcc muy nga romb mu mu nga romb ki yore sac ki yore portable ki yore moto ki yore lii ki yore loolu yëpp dafay nekk li nga xam ni nit ki da koy mën a jël def ko alal léegi léegi léegi léegi tentation yu bari yooyu tamit daf koy yokk ci ñi nga xam ne dañuy mu nekk et justement ci insécurité googule am na ci cas d'agression yi nga xam ne tey euh, c'est vrai que mënuñoo ne lépp bandi koy def euh, wala ñii ñoo koy def parce que bu ci nekk am na situation mais tey banditisme bi justement ak rey yu métti yi nga xam ne dañuy gis euh, ci à travers ay ay braquage wala ay leneen ak leneen yu jëm ci banditisme lañ ko amal ndax dafa am benn relation ak stupéfiants yi. banditisme dara la. Hmm. loolu mooy ñi nga xam ni dañu choisir dañu jël ci seen àddina nekk ay wuyu nekk ay nit yi nga xam ni dañuy dund ci diggante kaso ak biti bi. Hmm. suñu génnee def lu leen delloowaat. Hmm. loolu daf fi nekk. mu nekk yi tamit am beneen forme comportement violent bi nga xam ne dinañ ci dellusiwaat ñooñu ay délinquant occasion la mais ci biir motif yi nga xam ni. dafay indi banditisme bu drogue dafa ni benn facteur bi nga xam ne effectivement ci dundinu doomu aadama déjà day yàq. Mhm. ci day créer ci nit lu war a tax muy soxla xaalis day créer ci nit lu war a tax sax. bu soxlaam taxawee dootul gisati dara lu dul faj soxlaam boobu daal di avancer loolu effectivement day pousse ay nit ci violence mhm. mais ce n'est pas tout du loolu rek moo fi nekk dafa fekk ni dafa jaxasoo ak yeneen facteurs yi nga xam ni comme je l'ai dit tout à l'heure mhm. ñu ngi fii te ñoom sans drogue sax di ni en fait duñu ay bandi mhm. mais situation moo leen wone ça veut dire que violence bi nekk fii naka la ñu ñun àggee ba ci ay mërs suñu ay comportement suñu nit suñu nitu sénégalais changé ba léegi ñeme deret ñeme dóor mhm. ñeme gaañ ñeme loolu mooy problématique yi nga xam ne war nañ ko seddre indi ci ay jàngat mhm. indi ci ay xalaat indi ci ay mën-mën pourquoi parce que lan moo xew ci suñu biir société bi ba société bi changé ba lu mel noonu mën a am ci biir quartier ci biir dëkk bi mu mel ni Sénégal ak Sénégal yi seen bopp ñoom ñoo changé mën na nekk pourquoi parce que société bi day évoluer parce que soo gisee dëkk bi ni mu taxawee nii facilité communication yi facilité déplacement yi. Mm-hmm. nit ñi ni ñuy dajaloo ci biir quartier yi. nit ñi ni ñuy nekk ci biir kër ku nekk di dim jéem a set nan ngay fexe ba faj sa soxla mhm. loolu yëpp dafay nekk ay jaxasoo yi nga xam ni effectivement day indi société bu changé progressivement dem ci société bu violence mhm. boo ci yokkee nag jaxasoo bi ñuy jaxasoo ak yeneen nit yeneen aada nit ñu jóge fii ci déplacement yu yu bees yi ak li ñuy gis ci télé yi li ñuy gis ci internet bi li ñuy gis feneen mhm. effectivement dañuy war a comprendre ne ñun Sénégal bi ñu amoon démb pour ñu mën ci dellusiwaat il faut ñu taxawaat wutaat yeneen repère pour bu melee ni euh, askan bi dañuy yeewu di ko ñaxtu partout muy ci réseaux sociaux yi ci rajo yéeg yooyu ñu gis tamit ne day am benn réaction du côté des autorités muy ministère de l'intérieur takk der yeeg ñeneen ak ñeneen maanaam di def ay ronde ak daanaka li ci mujj sax mën nañ koo jàppee euh, couvre-feu mais tey est loolu solution la non bu solution hmm. man damay rassurer nit ñi ni état bi bu jógee ministre bi jóg wax ñu génnee indi alkaati ñu génne def couvre-feu daal di ramas daal di joxe numéro vert daal di wax du loolu du solution la ñuy indi dañuy dalal askan wi wan leen ni am na ñu nekk ci seen wet am na ñu nga xam ne ñu ngi leen di jàppale ci nga xam ne moom mooy seen métitu moom bii mhm. mais solution bi dépassé na loolu mhm. nit ñi dina mën a jàpp ci loolu ba seen xel dal dalandi ba ñu mën xalaat ni am na ku leen tal mais li des mooy ñu xuusaat encore ci biir solution yi seet li nga xam ni mooy insécurité lu ko waral li koy aggravé lu ko waral du agir foofu pour que mu wàññeeku. Mm. suñu deful loolu en fait c' est de la poudre aux yeux comme on dit. Mm-hmm. mais du juraat dara ay calmant la rek mais du mm-hmm. juraat dara. et puis mm-hmm. yu dul wàññi affaire bi calmant yuy wàññi sentiment bi ci biir nit ñi. muy sentiment d' insécurité bi nekk ci biir xolu nit ñi mais du wàññi délinquance. tey euh, ci wàllum politique la xuus ñun euh, gis ne euh, dafa am benn discours bu bu bu bu violent bu fi nekk tey ci scène bi ñu gis ne ndaw yi tamit dafa mel ni ñoom dañuy topp discours bi ba tey politique bu jóg daal di woo xale yi ñu wàcc si mbedd mi tey noo ko jàngate waaw xam nga comme je si antenne la ñu nekk day jafe nga xuus ci lu mel noonu. Mhm. mais dañu nekk ci jamono ji nga xam ne politique dafa nekkatul li ñu xamoon ci politique ci aada. Mhm. politique dafa méngoo ak pexe. Mhm. pexe wu jot ci nguur. ci jamono ji nga xam ne xalaat ak xel waxtaan ak ak ak euh, natt ay pexe tënku ko ba mu nekk ay pexe yu jub nga tegal ko doomu aadama yi ni lii kat moom mooy faj seen ay soxla ci biir réew. Mhm. loolu dafa amatul ci échelle bu rëy rëy rëy ci àddina bi. Mhm. ba mu tax am ay phénomène yi nga xam ni phénomène yu nouveau la ñi nga xam ni yi tamit nguur moo leen tax a jóg pouvoir moo leen tax a jóg. xalaat ni ñoom war nañu mën a utiliser sentiment wu nit ñi seen métit seen xol seen tawat seen jàmbat seen jooy pour yëkkati leen wutal leen ki nga xam ne si kooku leen war daal dal te en général bu ñu leen wax ku ngeen war a dal rek mooy ki yore réew mi te duñ leen proposer benn solution ci li nga xam ne moom lañ duñ wax sax seen ay tawat dañ leen di wax metti na metti na kii moo tax metti na metti na moo tax mais dans le fond du dans en fin de compte ñoom li ñuy remplacer politiciens yi boo xoolee moo wax que ci ci ci ci wolof bu leer. Mhm. boo xoolee pour ñu illustrer que tey rek ci élection yi ñu nekk tey tey tey tey tey ñëpp ñi nga xam ni dañu ci ay activiste lañu ay nit ñu violent lañu dañuy saaga dañuy xastaate ñu ngi ci télévision yi di wax ku nekk taxaw nga di tey dama bëgg nekk député ñëw yokku ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon seen kanam di xiirtal xale yi ci jóg ça veut dire que ñu ngi ci monde bi nga xam ni suñu mënee utiliser askan bi mu dal ci kaw nguur wala mu dal ci ordre bi rek dañuy naan suñu jaaree fii dëkk bi dina tuuru ci mbedd mi dinañ mën a jot ci nguur gi mm. loolu mooy phénomène nouveau bi ngay traduire nii la ay constat et loolu dafa dangereux dafa pernicieux il ne faut pas que mu jàll mais nag euh, bu ñu xoolee rek ci ay jëf ak li fi nekk tey muy système VAR euh, du lu bees ndax kat boo amee ay politique yi nga xam ne tey yaa ngi leen gis ñoo ngi jiite seeni kàddu démb nga andi ko danga naan méngale nga ko benn la waaw euh, effectivement Euh, violence verbale. Mm-hmm. violence physique sax. c'est-à-dire ay mm-hmm. jàmmaarloo. Mm-hmm. ay wax jax ju metti ay tegante gën. yàgg na ci espace politique bi. ay woote toj yàgg na ci espace bi da benn. loolu da doon ay jàmmaarloo politique politique bu classique. ay situation am ay tegante dënn am rapport de force am nit ñu woote ci loolu mu jàll mais loolu du mooy politique bi tey lii ñuy wax nii moom moo mekk mode d'action u politiciens yi politiciens yi fi nekk tey askan bi la ñuy xool duñ sax ay politiciens ñu ngi leen tuddee ay activistes ak askan bi la nuy xool seet fi muy jàmbatee fi muy tawete ñu fekk ko ko bu ko yëkkati pour teg ko fenn dal ko loolu du politique. yow dafa mel ni da nga da nga dédouané politique yi ci discours violent boobu jox ko activiste. non non non dédouané wu politique yi discours violent bi dama ni am na am na. Hmm. mais tey fii politiciens yi nekkoon di def politique am par circonstance discours violent. Hmm. dañ leen fa pousse ay activistes ñoo judduwaat. Hmm. tey boo xoolee à quelques exceptions près. ñi nekk ci espace politique bi di xëcc yëpp. duñu ay politiciens bind naa ko plusieurs ay activiste politicien lañu wala ay politicien activiste ñaar yooyu daje daje ci benn anam parce que seen mode d'opérer moo leen di identifier ni ñuy doxalee ci biir géewu politique bi moo leen di identifier mooy wane ni ñii kat tey façon bi nu indi tey dafa di façon bu bees bi nga xam ni dootu kaay moo wax leen lan mooy seen soxla kaay moo wax leen lu ma mën kaay ma wax leen réew mi nu muy doxee ëllëg kaay ma wax leen nan la ñuy def ba ñëpp seen ay soxla mais leen li leen metti mooy lii xam naa nun koy fañe dal leen ci kaw nii suñ fi jógee lépp dina baax loolu dootul politique politique beneen façon wax la ñun yàgg nañ ci géew bi yàgg nañ dégg ay politique am njàng la am xam-xam la ay façon la ay ay classe la nit di def pour mën a taxaw ci kanamu askan wax ci seen soxla ànd ak ñoom ci luy faj seen soxla mën nga nag wax ba jot ci nguur gi te doo faj seen soxla mais politique noonu la mhm. kon jàppale wu ma wax politique yi pour dal ci ko activiste yi c'est dafay phénomène yi nga xam ne dañu juuyoo activiste yi dañu jël place politicien yi. donc discours bu violent nit ñu violent kon bu ëllëgee mën nañoo ne euh, ñun on tend vers euh, des lendemains d'une société violente. oui mais on est déjà dans une société extrêmement violente ñun société bi nekk léegi violence daf fi taxawu moo tax ñu war a ñun ressaisir suñu bopp jëlaat suñu bopp téyewaat suñu bopp parce que lii fi nekk nii lu ko lu wees rek. naufrage la mais société violente am nañ ko parce que dépassé nañ fii euh, mars mille vingt et mais lu jiitu mars deux mille ba léegi ci loolu la ñu nekk. Mhm. mbedd mi ci biti dóorante mbedd mi ci biti ba deux mille vingt et un quatorze personnes euh, deux mille quatorze personnes dee ñu continuer ci loolu ci loolu ba léegi ñuy appeler à la violence da doon leen day doon leen suñ fi jógee rek dañu dugg ci catastrophe donc il faut ñu téye suñu loxo téye loxo képp ki nga xam ne da nga xalaat ni yow pour nga. tekki dara ci réew mi il nga jaar ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Cheikhna Cheikh Sadibou Keita euh, doonoon euh, jiite woon OCRTIS euh, commissaire à la retraite merci